Ouvrons la page internationale avec la Russie. Décès de Mikhail Gorbatchev. En Russie, une mémoire ambivalente et clivante, le dernier dirigeant de l'Union soviétique et dernier dirigeant de la guerre froide qui était encore en vie, Mikhail Gorbatchev, est mort ce mardi 30 août à l'âge de 91 ans en Russie, a indiqué un hôpital de Moscou cité par les agences de presse russes. Il est décédé d'une longue maladie grave, a indiqué l'hôpital clinique central, dépendant de la présidence russe. Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest au XXe siècle. Mikhail Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la politique et vivait dans un quasi-anonymat. Seule une pièce de théâtre à Moscou l'année dernière célébrant le Gorbatchev intime avait fait salle comble. Nous poursuivons avec les inondations au Pakistan. L'ONU lance un appel urgent au don de 160 millions de dollars après les inondations dévastatrices qui ont déjà fait plus de 1136 morts selon le dernier bilan officiel. Le Pakistan a lancé mardi 30 août avec les Nations Unies un appel urgent au don de 160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence pour les six prochains mois. D'abord destiné à fournir des services de base, santé, nourriture, eau potable, abri aux 5,2 millions de personnes les plus touchées. Si actuellement les efforts sont concentrés sur l'aide d'urgence aux sinistrés, il faudra ensuite reconstruire dans peu d'un tiers du pays sous les eaux aujourd'hui. Plus de 33 millions de personnes ont été touchées par ces inondations. Nous terminons avec les 5 migrants morts et 16 portés disparus au large de la Libye. 5 migrants cherchant à gagner clandestinement l'Europe ont péri et 16 sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, à temps après mardi auprès des autorités locales. Une embarcation avec son bord 27 migrants tous Égyptiens à chaviré au large de Tolmeta Est, a indiqué un responsable au sein de l'unité de secours locale, sans préciser quand le bateau avait chaviré. Cinq cadavres ont été repêchés, six personnes ont été secourues, tandis que six autres

loolu nag la ñu benn hôpital nekk ca Moscou xamal ñu for ko rek ci agence de presse yi hôpital ba nag lim ci teg moom mooy li waral faatu bi le mooy feebar bu yàgg bi nga xam ne rek sonaloon na ko loolu moom mi nga xam ne nag jotoon na am prix Nobel de la paix ci atum 1990 moom mi di Mikhail Gorbatchev ñaari fukki at yi nga xam ne moo mujj rek mi ngi ko doon dund di nëbbatu ci li nga xam ni moo di wàllum politique te kenn xamul woon ci lu mu nekk lu dul benn pièce de théâtre rek ci at bi jàll moo doon xumbal li ñu naan Gorbatchev intime moom rek moo ko feesaloon bu ñu jugee loolu tàbbi ci Pakistan mbënd baa ngi leen di sonal ONU ngi lancé ab appel d'urgence ci ñi nga xam ne rek ñoo di 160 millions de dollars gannaaw mbënd bi nga xam ni rek sonal na waa Pakistan loolu ba jot rey lu toll ci 1136 nit ci lu ñu mujjee wëññi Pakistan nag yónnee na ab appel d'urgence ci talaata bii ñu génn di fanweeri fan ci weeru août ànd ceeg rek ñi nga xam ne ñoo di Nations Unies di def appel d'urgence boobu rek ci 160 millions de dollars ngir mën a financer rek li nga xam ne moo di plan d'urgence bi ngir juróom-benn weer yi di ñëw dañ ko dencoon rek ngir teg ci ngir defee ko ay ndimbal yi nga xam ne moom la ñu gën a soxla ci tartaar yi mu di wàllum wér-gu-yaram wàllum dund wàllum ndox ak wàllum làkku ñu waroon ko jox rek ñu toll ci juróomi million nit yi nga xam ne rek ñoom la mbir mi gën a laal bu fekkee nag jéngu yi nga xam ni jot nañ ko def rek mi ngi doon aide ci ñi nga xam ni ñoom la mbir mi daal nañu xam ni rek dinañu war a tabaxaat tamit lu bëri ci biir réew mi ndax lu toll ci fanweer ak ñett million nit mbënn mi jot na leen laal. fi ñuy jeexalee xibaar yi rek mooy juróomi migrants yi xam ni ñàkk nañ seen bakkan ak fukk ak juróom benn ñi nga xam ni rek réer nañ fële ci Libye juróomi migrants yi nga xam ne ñoom ñoo doon jéem a dugg clandestinement foofu ci Europe jot nañoo ñàkk seen bakkan fukk ak juróom benn nag ñoo si jot a réer gannaaw naufrage rek bi nga xam ni moom la benn gaal daal di def foofu ci Libye ci la ñu jot a jàpp ci altine gi ñu génn gaal googu nag mi ngi amoon lu toll ci ñaar fukk ak ñoom ñëpp bàyyeekoo fële ca Égypte gaal ga mujjee tëmb ca Libye fi ñu naan Tolmeta maanaam rek ca penku ba loolu la ñu benn responsable xamal te bañ ñoo wax rek kañ ak naka la la gi daal di tëmbee juróomi néew yi nag ñoom génn nañ leen juróom benn nañ ci jot a ndimbali te faatuwuñu wante fukk ak juróom benn ñoom ñoo réer te li ñu jàpp ci li source bi wax rek mooy ñooñu ñàkk nañu seen i bakkan lii nag moo ndar képp xibaaru bitim réew